jëflante gi am ci diggante ñaari réew yi di France ak Sénégal waxi teer bi itam moo ca gënoon a fës li gën a fës ci yéenekaay yi nu xëyandool tey bokk na ci doxu ñaxtu bi ñeenti kuréel yu fare ci société civile bi doon amal niki démb ci mbedd ndakaaru yi taxit journal yu bëri yu nu xëyandool xëy dellu ci muy l'Observateur L'As Les Échos Enquête Vox Populi Walf Quotidien Le Quotidien lii Quotidien Libération Les Échos ba ci Source A L'Observateur ne mbooloo yi ne li ñu bëgg moo di ñu bàyyi Aliou Sané bu yaana maar ak képp ku nu jàpp te politique rekk tax laas yéene kaay ne ndaje ma kay démb foo sànni woon mbàttu mu tàkk muy société civile bi way politique yi ba ci njabooti ñanu jàpp ñu nekk ca kaso ba les écone ful immense di mbooloo mu tàkk turu Ousmane Sonko gënoon faa jipp foo ay toll di dégg libéré Sonko Walf Quotidien ne mortal combat bi kay ñoo ngi ci wërgal gu mujj gi les écone lu ci mën di am daal a présent moom la a jipp li ci bërki démb ak léegi moo di wàllu wér-gi-yaramam turbine yéen kaay ne kayit gi rëcc démb ba dem ci mbedd mi di wax ci wér-gi-yaramam moom Ousmane Sonko procureur nee na képp ku ci laale yoon dina la topp teg la ci yoon journal bi ne loolee juróomi ati mën na la caa fekk wala sax ñu rajee la Vox ne procureur dafa daaneel rek avocat yi layal Ousmane Sonko jël ci yéen bi ñoom avocat ñu dal ci kaw procureur de la république dinaan ko keroog ba ñu tasaare photo Ousmane nëbbal ay données personnelles maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yi koy layal ni ñoom fi mu li ñuy sàkku moo di ñu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi këram ndax wéerul jëf yi ñu wéra di dëgg la ñaari député doon def ci assemblée nationale les économies du kenn ku dul Abdou Mbacké Bara Dolly ak Abbas ñoom ñaari député yi dañ doon xeex kurpañ tépp la ko député Touba bi fëgg laata Abbas di fayu gars yi àtte leen di lu doy li doy waar ba far ëpp tool ca waaxi gànjool ñu for ca juróomi néew ñeent ña di ay jigéen kenn ka di góor ba si góor a koy bay waaye tu góor dëgg mooy gasub teen l'observateur ne méccam gasub teen ak neen du ko def journal uri 15 angul ko nis bi ne firnde li moo di ñi jox kàddu gi am ko ni ko lu nekk la daan gént bu tëddee amit ko ne mas nay gasub teen dem ba ca biir jigéen ju xes pecc sumeeku ba set feeñu ko fa abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu mi ak ci bitim réew